asalaamaaleykum léegi léegi ñu dikk ak yéen ci seen tënkum xibaar fii ci Evidence TV. ki mémmeeku bi mu defoon fale ca Mauritanie ak gambi njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye moo ngi xëy wutali ca talaata bi fale ca réewum Guinée Bissau ngir amal ak tukki mémmeeku ginnaaw loolu bokk na ci ñaari réew mi li ñu war a waxtaane li gën a dëgëral seen diggante niki démb ab benn biss bu ligne 32 moo daal di saaraan fale ca rond-point EMG ñoo ngi ñuy xamal ni am na ay nit ñu ci am ay gaañu gaañu yu méttee métti ak benn soxna bu ci ñàkk bàkkanam ñi ci ñi ci jëlee ay gaañu gaañu sapeur pompier rawal na leen ci suñu lopito yi. ñu ñëw ci tàggatu yaram wax ci wàllum làmb doomi mbuur bi di bombardier war a jàkkaarloo ak xale parcelle bi di yoo ci turu franc ñu war a jàkkaarloo ëllëg ci alarba bi janoo benn fan ci weeru mai fale ci arène national bu Pikine ñu jeexale xibaar fale ca bitim réew ginaaw juróom benn at lakk gi amoon fale ca Grèce ba téeméeri doomi aadama ñàkk ci seen bakkan yoon teg na loxo juróom benn nit ci ñaari fukki ak benn yi ba daan leen juróomi at kaso ak ndàmpaay bi ñu war a fay mbokk yi lii moo ci rusoon ci ay xibaar ñu jóg leen dig daje ba ëllëg incha